waaye maam maam yàq dem na yoonam waaye moom maam oh oh laa ilaha illallah laa ilaha illallah yaay caddu wees waaye caddu wees yowmal xiyaamul akbar allahu akbar dalal mais lu ndekete ndekete jinne yi ak ñu jomalaate fii fii la léppee France de dimbali ma nag dimbali ma ba ma wax waxi jinne ah chéri nag wax yii de yow lan la loo fi gisagum lu xew la ilaha illallah la ilaha illallah. lan la lan ay waay waay waay maam yàq maam yàq yàqu na. maam yàq. oh oh. gënu gu tuuti yàq na àddunaam. eh yow lu xew. waay waay waay du dëgg du dëgg. waay waay du yàqu na yàqu na. waaw lan lan lan fi am. li ko topp li ko topp bu doon maam wataan fii lay wat. waaye moom li ko topp fii xam nga rab ki jinne ci tubaab yi la ëppee ay gone gi yàqu na àdduna mooy. rek léegi nag lii lan la moom. bëgg a dof ni samay loxo naan ma maam yàq maam yàq. maam wataan da daan wat fii maam wataan. mais kii dañ koo topp maam yàq mi ngi gis dañ koo topp. nuñ ko toppee lu lan la def wax ma rek lu mu def. maam yàq nga yor téléphone maanaam ku may fay ku may fay ku may fay kan moo may fay kan moo may fay maam yàq kan moo may fay. maam yàq li ko topp du ko bàyyi li ko topp li ko li ko topp du ko bàyyi ay waay maam cat du wees muy maam yàq maam yàq maam yàq kan na kan la yore muy maam yàq ñam ñoo ko leboon maam yàq mbaa dañ koo le ku may fay ko ko may fay ku may fay ku may fay ku may fay ku ma ba ca bopp ba ca bopp maam yàq li ko jàpp fii ko bii la ko jàppe xam nga lu ma bëgg nga xam ko hmm. xale yi dañuy jël portable yi di photo seen bopp di xool nii di natt ak nataal seen bopp. Hmm? naan ku ku sinap. loolu la ñuy wax Snapchat suñu paree partagé ko maanaam dañ koy envoyé seen moroom yi ku ci nekk ci sa boîte ñuy xool xam fi nga ne. waxoo jàmm. wayu man maam yàq li muy wane nii yëpp kon kuy xaritam fi ne di nga ko gis. di ko gis te nga xam ni mi ngi fii. loolu rek la. da xam ni mi ngi France. mi France ñoom dañ koy xam. lii mooy waral Snapchat dañ koy jël naan nii naan ko ku Snap. nii jël naa ndaare. ah ah ba ko jëlee du tey. damay ñaan rek ki nga fii rek yërmande laa amoon ci moom rek. ba ci kanam maa ngi maa ngi doxantu ba ba ba. di nga dem moos. ba maa ngi doxantu ma ni di dem. maa ngi dem Saalum déggoo te jàpp sama doom ji rek dofloo ko nii la rek nga ni bu bu bu bu bu Snap la rek. di ko war lay xaritam. li nga xam ne yow doo nga nekkoo France de maa ngi naan maam yi àq daa dof nekk te doful ji nañ buggu sunaab bugg nii la buggu sunaab buggu buggu sunaab buggu xool sama tontu buggu buggu sunaab buggu buggu sunaab maa ngi France buggu sunaab buggu

Bougou Zuzi Afari Bugusu Bugusuna Bougou waaye Bougou da ngay déglu nag ngay déglu